jërë ngeen jëf mbokk ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ koy defee saa su ne démb dégteel nañ leen benn ndaanaan tey ñu ngi fii ci kër ndaanaan boo xamante ni def na lu baree baree bare ci bëre door waxatuma la ak bëre simple bi nga xamante ne bërki démb terrain gaal gi moom moo ko jël ci kaw tas yaakaar tey ñu seet si ko bëgg a waxtaan ak moom ci làmb ak ndam li nga xamante ne ñàkk na ko fële. ca ca ca ca ca ci diggante mag Doudou Sané loolu yëpp bëgg nañ cee waxtaan waxtaan lépp loo xamante ni day yokk làmb sama euh, booy fay maa ngi lay. waaw ñu ngi lay siyaar di nuyu àdduna di nuyu monde entier jox naa naa auzubillah bismillah inna wàll yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba allahumma inni as'aluka min anni as'adu annaka anta allahu la ilaha illa allahu anta ahadu samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad waaw di santaat yàlla di santaat yàlla waaw di gërëm suma baay ba di ñaan suuf sedd ci kawam di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay chaque jour. Uh-huh. Uh-huh. Boy fay bi làmb ji léegi gisuñu la saison bi bu mu tëjee fan nga demoon. waaw dafa Boy Faye dafa defoon comme li mbër yi def rek. waaw demoon Maroc doon waajal suñu bopp ànd ak ay ay gars yoo xamante ne xarañ nañ ci lu mu wuti woon. muy wàllu doole ak wàllu xam-xamu bëri waaw ah, wuti nañ ko nag bi àpp bi jeexee ñibbisi nañu nekk ca la ñu nekkoon di ànd ak yàlla mañ daan àndal démb ak tey di ñaanaat sunu borom sax du rek ndam daal waaw ne ca lañ nekkoon daal wax dëgg. lu nga choisir dem Maroc. ah waaw dem Maroc loolu la rek parce que affaire yi ku nekk ak fi nga yëgee sa bopp sa ruq la rek ku nekk sa ruq ñi leen yëg am sa ruq. ñii am ruq France ñii feneen ak feneen man sama ruq Maroc la nekk dem naa fa liggéey te li ma liggéey doy na ma bi ma ñëwee li ma liggéey am na lu may woon am na lu génn génnagul te amaana yaakaar naa bu njëgee ba ci biir loolu dina génn daal. nga dem Maroc ñu jékki-jékki gisuñu booy fay gisuñu booy fay ba dégg Jax galaaw Jax bi teg 10 millions arène national ñu jékki-jékki rek gis booy fay ne peut génn ci làmb ji donc kon Maroc bi yëpp Jax bi nga doon non wax dëgg du woon loolu sax ndax euh, dañoo nekkoon ci liggéey boo xamante ne ni àpp la rek bu jeexee rek ñu ñibbisi mais dañuy liggéey ak ay yoo xamante ne fekk jeexul daal wax dëgg duñu mën a ñibbisi daal bi mu jeexee tombel ñu ñibbisi làmb mooy sunu métier ginnaaw pièce détachée bi may jaay suma place su mag làmb la ñuy def bon bu ma ñëwee li war mooy takk sër rek nekk ca la ma nekkoon doyloo yàlla ma daan doyloo démb ak tey daal dëgg loolu daal moo ci ne. nga ñëw ci journée Jaks bi. bëre caaka fay mu éliminé la quart de finale nga demaat beneen journée nga ñëw fële ci Adrien Senghor wala gaal gi gaal gi nga ñëwaat. Euh, daan ki nga xamante ne mooy tas yaakaar caaka fay bi mu la daanee dama dafa mel ni yaakaaroon nga ni njort ni dangay jël final bi keroog. waaw ku takk sër jóge sa kër boo ñëwee da nga am yaakaar ne da ngay jël làmb mais ñun dañuy daanante ñun ñëpp suñu biir. caaka bu ma daanee loolu loolu lépp ci làmb la bokk ndax ñun dañuy daanante làmb traditionnel moom mooy li may wax rek moom moom séntu asamaan la jarul buuxante ku la daan tey mën ngaa fayu suba waaw nit mën laa daan tey ngeen départ jëm ci àll bi suba nga fayu waaw kon nekk na loo xamante ne même boo ci daanee ni sax doo ci kañu parce que suba mën ngeen dajawaat te suñu borom di yow dong lay may dalay may tey suba mu may sa morom aduna noonu lay doxee. amateur làmb yëpp nee nañ caaka fay. mënul booy fay booy fay mënul caaka fay mais keroog ñi la caaka fay daanee dafa yomb trop ci amateur yi li ñu wax. ah waaw loolu lañu yaakaar rek loolu lañu yaakaar rek waaw bisu am moom bisu ñàkk moom di ko su am ndax chaque jour li ngay def di am moom ngay def di ñàkk yàlla moom jaay ñi lépp programme suñu borom la rek waaw bis bu waroon a am ndam tamit moom mën nañ koo def noonu ñu ne waa yomb na torop ni caaka daanoo waru daanoo noonu daa yomb mais yooyu yëpp ci dafa bokk ci ay bagaasu làmb daal waaw te yàlla baax na daal saison bi ñu ngi ci gaa yi ngi fi nañ dem ba ca kanam daal. caaka fay daan la éliminé la. nga xëy la lendemain ñëwaat fële ci terrain gaal gi bëreeg l'an 2000 daan ko ñaata champion nga fa daan keroog. keroog daan nga de fay. daa mel ni gaynde mer la fanaanoo waaw dëgg la xam nga mooy li may wax rek suñ ñëwoon fekk fa ponkal yëpp tamit. noonu la fay demee bu ñëwee fekk fa tamit ñoo xamante ne tamit dañoo woyof it noonu lay demee maanaam ñun ambition bi ñu am ak yaakaar bi ñu am ak ngëm-ngëm bi ñu am la ñuy àndal chaque jour. ba lañu sunu borom di jox mooy li may wax rek booy fay muur kenn <laughs> maanaam tey jii nii ñun ñëpp dañuy daanandi sunu biir rek te làmb nag dafa nekk loo xam ne da ngay def gaa yi def rek ngeen ñëw tase ci làmb ji sunu borom ki mu namm ne mooy jël làmb ji moom mooy jël làmb ji noonu la fay demee booy fay toujours ni mu mel lay mel noonu lay demee làmb buy am ci lay am buy ñàkk ci ngor lay am ci ci ngor lay ñàkk quoi noonu la làmb demee. saison bi sax daana mën daanaka mën nañ ni li fi xew ci bëre simple bareegul mais saison wu daaw fay ñaata ñaata journée nga jël. fay daaw jël nga de. waaw macha allah daaw moom. <laughs> macha allah daaw yàlla ko waaw wax dëgg fa yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax macha allah macha allah am na xam ne yàlla bëri na sutura daal daaw daal jël nañ suñu wërsëg daal. jël nañ suñu wërsëg ñaata nga jël non wax dëgg jël nañ suñu wërsëg nag quoi macha allah. moom la juree 14 journée. non wax dëgg fa yàlla loolu moom du ñu ci wax sant yàlla daal sant yàlla sant yàlla daal <laughs> wax dëgg. maa ngi ko am na tournoi bi sama papa Ligue Nicolas tegoon 5 million ya yaa ko jëloon de. waaw waaw du ñoo ci final woon feetu ko sant rek sant rek sant rek waaw sant rek bilaay <laughs> sant yàlla bu wér waaw. ñu am lu ñu jaaxal. barki démb li xew Passy. dafa yéem ñu bari. nga bëri duut saane mu daan la. waaye man li ma jaaxal mooy ca façon bëre ba. ni ngeen bëree mën nga maa expliquer yaa Doudou Sané lan moo dox seen diggante. non Doudou Sané euh, loolu lu ma ciy wax du bari ah, waaw parce que am naa yaakaar ne niin moom bu ñu koy wax ci làmb arbitre moo am droit wax ku niin ne Doudou Sané amul droit wax nit ku niin ndax niin la déclaré ne dangaa ngaa niin te niin bi mu déclaré bi ma ko jekkoo la ko wax bi daal di àtte làmb ji bi ñu àttee moom la ñu làmb ne ko da ngaa niin muy fomp bu ñu waree boolewaat am naa yaakaar ne war na jël avertissement te mooy li may wax rek nañ ñu yemale ñu mbëru làmb yëpp rek nañ teg lépp ci yoon rek muy àll bi ak lu mu munti doon. parce que ku ci nekk da ngaa bàyyi say waajur wane ginnaaw ñëw di wut si waaw suñu boroom ku mu dogal nga jël ko noonu la fa war a demee mais lépp nañ koy teg ci yoon rek ndax am na loo xam ne boo ko bëggee dund doomu aadama bi tamit bu doon sa mbokk la ñu def ko ko du la neex quoi. sëñ Bass damaa bëggoon nga may ma combat Doudou Sané ak booy fay fële ca Passy ñu xool suñu mbokk internet yi xool làmb ji su ko defee ñu ñëw waxtaanaat ci. waa ak Doudou Sané li mu bañ. ku sifflé leen boole moo leen di tàqale wax ak ay jugeam coup d'envoi coup de sifflet de monsieur l'arbitre mu ngi noonu Boy Faye féete ñu càmmoñ Doudou Sané féete ñu ndijoor bu ngeen xoolee nag Doudou Sané moo xaw a gën a xees Boy Faye dafa xaw a ñuul Boy Faye jëli na tànk ba Boy Faye Doudou Sané Boy Faye Doudou Sané Boy Faye Doudou Sané eh lan la arbitre wax Boy Faye Doudou Sané am na lu Doudou Sané di réclamer Doudou Sané am na lu muy réclamer Doudou Sané am na lu muy réclamer Doudou Sané am na lu muy réclamer diw ñu booy Boy Faye dafa diw nañ ko xool nee na Boy Faye dafa diw nee na xool na ko nee na yaa rien arbitre xool na ko nee na yaa rien arbitre sifflé waat na diggante Doudou Sané ak Boy Faye ndeysaan Mbayang Loum ci ginnaaw loolu ngeen di dégg muy neex fay biram penn waagaan di tagg ca ga muy neex loolu fii la am attention Doudou jël na Boy Faye eh eh Doudou Sané war na ko ndombo Doudou Sané war na ko ndombo Doudou Sané daan na Boy Faye Doudou Sané daan na Boy Faye Doudou Sané daan na Boy Faye eh na Boy Faye Doudou Sané daan na Boy Faye. combat yaag Doudou Sané damaa gis ni yéen ñaar bi arbitre bi sifflé da nga dem ba jàpp tànkam mu signalé arbit bi arbitre bi àtte ne Doudou Sané ne dafa da nga niin xanaa avant ngir arbitre bi di sifflé yéen ñaar xooluñu seen yaram. xool nañu làmb nañu ñun ñaar ñëpp xool nañ ma ndax niin naa wala niinu ma niinu ma ñu xool Doudou Sané na ko fompul mu fomp yaram bi kon am naa yaakaar ne bu ñu xasee coup bi bu jibee waroon ñu àtte làmb ji fekk làmb ji jeexul tànk ñu ngi ci biir géew bi demuñu fi nit ñi génnuñu géew bi jékki naa jékki daw daal di koy fàq mu ñëw ma jiwaloog moom coppati tànk bi képp ko di tànte sama action pour xar ko mu jóg arbitre bi daal di Doudou Sané yuuxu ko ne daa niin yëkkati loxoom arbitre bi àtte làmb ji bi mu àttee làmb ji Doudou Sané man am naa yaakaar ne nekkul ki war a wax arbitre bi ne man damaa niin waaw kon foofu loolu mu àtte noonu togg ko ci yoon bi ñu àttee après boobu mu ne man dama niin arbitre bi xool xool ma niilu ma. mu xool Doudou Sané mu fompawaat ci loolu noonu dafa war a jël avertissement jëlul avertissement deful dara arbitre bi daf ñu boolewaat te nekkul benn yoon boobu la ma fa dal mooy waral ñun bu ñu jógee wax dëgg di dem ci àll bi di bëri ji yaakaar na ne làmb fépp Sénégal gépp fépp nañ koy teg ci comme ni ko doit Dakar tegee ci yoon arbitre Dakar ni ñu koy tegee ci kon fépp noonu lañ ko war a tegee ci yoon waaw Sénégal la rek affaire yi na rafet na rafet nañ teg lépp ci yoon hmm. mbër yëpp benn lañu ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci village nañ ñuy dimbali rek di bañ a jël mbër mbëru village di leen favoriser ndax mbëru village dañuy ñëw fi Dakar ñu ñëpp dañuy bëre làmb ji benn làmb la mënuñ koo xar mu nekk ñaari làmb nañ teg lépp ci yoon ku ci nekk da ngaa bàyyi ay wajur kër ga ñëw di wut si pour loo yóbbu sa kër noonu la fa demee kon nañu rafetal nañu rafetal bagage yi lépp rafet rek ñun loolu lañ am pour wax ko. voilà bi mu la daanee def. bi ma daanee loolu loolu la ma def daan nañu après ay sumay nit dem coow noonu après bi ñu coow noonu gars yi daal di dem ñibbi bi ñu pare ñun ñëpp ñu ànd daal di ñibbi daal daal di. jël suñu bagage dem te première chose sax mooy am na yeneen yoo xamante ne du jar wax. wax dëgg ndax li am na li la fa métti bari na trop fay li tax du jar wax moom mooy am na foo xam ne bu ñu fa yeggee du rafet daal nan bàyyi noonu rek parce que lépp ci làmb la xaj. Mm. am na loo xam waxee lépp daal dina doy waar trop trop trop lépp ci làmb la xaj moo tax sëñ sëñ mm. nanu bàyyi noonu quoi te te li may ñaan rek. mooy nan leen woo ñu gën a teg lépp ci yoon rek parce que mbër yëpp mbër la ñu nanu yemale mbër yëpp rek loolu laay ñaan quoi. non li ma njëkk a jaaxal mooy mise bi ñu dégg ne un million cinq cent lañ teg ñu dem ba ci digg bi dégg ñu ne un million lañ teg yow bi ngay dem ñaata nga dégg ne moom lañ teg. waaw journal bi mi ngi gaa yi bi ñuy départ un million cinq cent lañ ñu déclaré bi ñu demee ba foofu ñu départ démarré lamb ji. biñ donc ñu démarré làmb ji am waa ji ñëw di ma wax ci wàllu na ma noo li ñu expliqué ay affaire ma ne ko man munoo wax ak man sax maa ànd ak ay doomu aadama am ay kilifa mu wax ak suma benn mag bi mu waxee ak moom ñoom la ñu la ñu waxtaan sax ba mu dee xaw ma ko te boobu avant ñuy wax loolu ne wàññi bi bu fekk na tirage nañu ba démarré nañu làmb ji bu fekkoon ne dañuy teg un million avant ñu démarré làmb ji kon boobu waroon na fekk ñu déclaré loolu. suñ ko déclaré après ñun ku ci nekk xam ne dañu bàyyi bañ démarré dem ba ci digg bi loolu doog fa kon wax dëgg fa yàlla ñun affaire yi nañ koy teg ci yoon rek quoi bu demee ba mu jeex tamit ñu daal di ne ñu un million lañ teg garaawul ñu daal di jël la fa nekk rek daal di dem mais damay wax toujours ne ñoom maanaam àll bi village ñun gars yi nañ gën a defaraat làmb ji waaw daal tegaat ko ci yoon quoi parce que ni làmb Dakar jaaree yoon ñu teg ko ci yoon ku daanu xam ne da ngaa daanu ku daanu xam ne da daan daal di jël say bagage ñibbi si jàmm dara amul ci benn problème ci wàllu arbitre dara xewul kon ñoom war nañ mun di def noonu quoi te lu ndaw loo def ñu ne dañuy bind rapport di la déclarer guerre naan dañuy yónnee Dakar fekk na ay na yéen ñoo la wallaahi te boo fa déclaré sax di wax naan ay damay dem Dakar def rapport ñoon la demal fii àll bi wax wax seen wax teg ko comme CNG moo leen njaboote yéen ñëpp te yoon am na ci réew mi xanaa di nga bind yóbbu CNG. ah waaw li ñu war a def def nañ ko ñun li ñu war a def nañ ko bind xëy def nañ ñu war a bind nañ rapport yóbbu nañ ko CNG. def nañ li ñu a def quoi. waaw waaw li ñu war a def wax dëgg fa yàlla def nañu ko fi mu ne nii ñu ngi suñuy entraînement. def li ñu war a def kon bi ngay déglu. waaw ñu ngi ci rek def def li ñu war a def nekk suñuy entraînement waaw parce que lu ñuy waxtaan loo xam ne lu ñu leen di woo la ñoom wax leen rek ñu teg affaire yi ci yoon ñoom ñooñu. ku ñëw lépp laamu bu amee ñëpp ñu koy teg ci yoon yemale mbër yëpp ñu doon benn rek loolu la rek. le 12 janvier xam nga lan moo xew stade Diop Iba Mar. ah 12 janvier 12 janvier lu xew foofu. <laughs> booy fay yaa ma gën a xam li xew Iba Mar Diop. man xaw ma lu xew de man. association les promoteurs ñoo teg stade Diop Iba Mar Diop teg mise bi cinq millions. ah waaw su fekkul fekk boobu noonu ñu ñu ñu ñu ñu dem fenn ñu tukki. man a yow ay wax. la ma wax ëbbali démb loolu laa lay wax rek ku dóor bomb ci booy fay ci moor ya lay bokk. dangay dem far foos leer na. waaw loolu nga yaakaar rek. waaw mun nañ ñëw ba ñu gis booy fay tamit de ndax ñu ngi ci leneen. takkikat yi lay fay fas la quoi ñu takk la. Uh, non. <laughs> xam naa ne daal Serigne Ndiaye de dina ñëw ëbbali dina ñëw. Caaka uh, Fay dina ñëw. L'an 2000 dina ñëw. général Malika di ngeen ko fa gis di ngeen fa gis assurance bu mbuur ak yeneen daanaan man loolu leer na ma. waaye saana dina ñëw. waa ndeysaan yàlla baax na bu fekkee bu ñu fi fekkee daal yàlla baax na yàlla bëri na sutura waaw hmm. ah, loolu daal laa yor yàlla bëri sutura